jërëjëf mbokku téléspectateur yu Bantamba TV ak yu La 2STV mbokk yi ñu ngi leen di nuyu dem mbégte ak contentement bu mag mbokk yi jàkkaarloowaat ak yéen sur La 2STV la télévision autrement ak la Bantamba TV mbokk yi ak rajo Pa Modou Mbaye te nag maa ngi fii porte de Clignancourt ci Paris moo tax ma def mi waaye nag euh, mbokk yi ñu ngi wax rek baatu inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ah tey réew mi naqar la xëyee tey réew mi tiis la xëyee gis ngeen lu toll ci ñeent fukki doomu aadama yoo xamante ni ñàkk nañ seen bakkan ci benn accident boo xamante ni mi ngi am ci yoonu Kaffrine muy lu mitti lu doy waar loo xamante ni tey réew mi yëpp ko naqarlu ñu ngi ñaanal ñi nga xamante ni ñoom ñoo fi bàyyi ko yal na yàlla suñu borom yërëm leen te jéggal leen waaye nag ñi nga xamante ni ñoom ñoo yor kaar yi di yëpp des milliers de personnes ñu ngi leen di ñaan. bu ngeen yabatee doomu aadama yi dee leen xam ne ay doomu aadama ngeen di yab di daw ndànk xam ne ay bakkan ngeen yab c'est très important yow mi ngi koy wax loolu sa ndimbal la boo ko defee di daw ndànk dina la tax a mucc dina tax kaar bi mucc dina tax ña nga yëpp mucc la sëñ Fallou waxoon rek mooy kondiir dana ne nit ki mu dëgër te ni jàkk bu ne tàcc nga ne tek mu ne yàng nga ne yoll loolu boo ko defee sunu borom mën na laa dimbali mu cël la ci lu bari yal na yàlla yërëm leen te jéggal leen et tey arène nationale la ñu nekk ànd ak Fallou le promoteur numéro un moom moo xew la tey maa ngi leen di bëggee bu baax. baay baa la et sa première journée ba bi. fu mu ko léegi incha allah yaakatul maa ngi waaj. kañ la maa i waaj lu rëy mois de mars bi pokola bu laal. ak yeneen ak yeneen combat yu mag yi yow wax naa la ko. loolu njar de Papa Bari Bari moo indi loolu doomu Grand Yoff ndeysaan Karbala bay bala mup ana waa Tëngéej waa Tëngéej jàngale ana waa Marina waa Marina cëw leen Rabeen Mengo Bédé këri kaw këri suuf Arafat waa Grand Mbaaw ñi aw ma fay mu nii xale yaa ngi mais saison bi passée yow lañ def meilleur espoir. waaw gis nga di ñaan mu mu ñaan ñaalam mu jëm kanam di sant ñëpp di gërëm ñëpp. xale yaa ngi noonu. waaw xale yaa ngi xam nga fay ñu yëpp ñoom la. mooy li ñu way nii. ba jàmm la. dégg ngeen ñu bët. ba jàmm la. ñi xam nga fay barki sëñ Bamba. ay ndaan lañ ay champion lañ gis nga. waaw. booy jóg dóor. damaa bëgg nag ñu dem fee moom la li may ni tey. fan la ñuy dem. bàyyi baax la nan doxandu nee rek ma am lu ma la wax. lan moo tax léegi booy boo dëkk micro mi ne la nañ dem may. moom la li muy indi. damaa bokk si làmb xale bu ndaw. billaay walaay taala. lii la lii. ëpp de. bàyyi baax la damaa bokk si làmb barke Sëñ Fallou Mbacké. def six combats six victoire bi mooy septième victoire bi yombul man maa ngi nekk yow li yëmbal marin xam nga doon xale bu ndaw ànd ak samay mbokk waa yëmbal benn boraat Kër Massar Malika xam nga ñëpp ngeemu ma indi ma tey si laamu ji tey ndam rek. koo indi tey. waaw tey sama turandoo laa andi waaye. sa turandoo. waaw mu ngi ci biir. waaw mu ngi ci biir fay nañ ñoom. naka ñu ngi sant bu tey loo indi tey. ay bu soobee yàlla indi nañ lépp loo xam ne mos nañ ko indi daan nañ koy indi ci moom la ñu indi di ñaan yàlla nag mu may ñu ndam. lan ngay wax sénégalais ci at bu bees bi. bees bi loo ci wax. Ah, bi ñu ngi ciy ñaan sutura ñaan ci xéewal yàlla defal dëkk bi yëpp mu doon dëkk naataange doon dëkk jàmm lépp luñ ciy yaakaar mu doon musiba lu loo xam ne du jëmale réew mi kanam yàlla na ko yàlla fànk indi liy jëmale réew mi kanam yaa yow arabe la. sanu maa ngi nii léegi ma bëre de waaw waaw combat bi mos des maay bëre waaw waaw. abon. Ah, siyaar la. amu lépp jàmm. ay champion ñoo la dar. ma kattanal ma. kon tey juum ma ndam rek a ma war te si kattanu yàlla du tooñ kenn yeewu askan bi damay yeewu ñëpp ñu tout tan kese laay àndal billaahi. lay wax ci at bu bees. yee at bu bees li ma waxoon rek laay waxaat. Lamsaar jël ñu nekk si kaw. képp lay ñu ngi lay fay ba Tamax. foo ne sant sëriñ bi rek. maa ngi si jàmm bu baax. na moo fi xanaa. fii waaw nam naa ko bu baax a baax. très bëri. léegi rek xam naa yàggatul. waaw na jàmbaar yi ñëw rek ñu xoos. jël bu amul benn warante ndeysaan ndeysaan doomu Grand Yoff bi na kooku Papa Bari Bari Papa Bari Bari si kanam waaw nañ ma jox Balla Gaye dafa retere nañ ma ko jox laajal sa borom eh booy papier blanc bi lañ ñooñu ñoo ànd ak Boy Diop 2 ay eh, papa jëli bu nga daan waaw bilaay ba dama liggéey ma tëran ba sono bilaay wallaay taalaay boobu lu ma liggéey xajul si kawam sax bilaahi barki sëriñ Bamba kii sama bët si kaw laa ko teg fan nga jëm bi mooy waaw bi mooy sama deuxième combat deux victoire waaw waaw di bëgg peese waa peese chambre in chambre in ba 49 ba 50. ah. yow côté bi la wala. ay eh, bari eh, kii kese. di bëgg waa chambre 14. waaw maa leen bëgg bu baax. waaw waaw waaw yaa ma gën a xam Kambenaat. chambre 14 Elias Samb ñu ngi koy nuyu fa la ah? ñu koy nuyu fa la nekk. waaw fa la nekk. waaw per Diaw maa ngay gërëm sama père. maa ngay gërëm barki Serigne Bamba. maa ngi lay nuyu bànqaas. maa ngi lay char. nga xam eh, lu waral bànqaas bi dama. ah bànqaas bi. bànqaas bi ah bànqaas bi dafa dëgër de. wuu bànqaas bi kenn du fi naanee dara. kenn du fi dammee dara. tey loo indi tey ci la man la doomu Kër Massar village bi waa Kër Massar village dañ maa yëpp andi ma kon du ma caaxaane dara damay ñëw wane comme la ma doon wane rek ñëw jàpp daan loolu laa mës a xam loolu laay doxal. mais maa ngi lay bëgg maa ngi lay fay di. mais na xam waaye sant yàlla mu mais mais mais jël bu rëy nga mujjee daan kii waaw man ak Boy Notaire Boy Notaire waaw santaat yàlla rek kon nu mu ko daan waxee rek di santaat yàlla bu baax a baax ñoo ngi waajal le 12 mars incha allah rabi yow ñu nag Boy Sila ah. incha allah loolu combat waaw waaw dañu mujjee daan tey bilaahi mas Pape Dianka maa ngi lay nuyu la bëggee Baye Balla na xam bu baax lépp jàmm lépp taw feex kay mais dafa mel ni combat bi mayewoo dara de ñaanu moo ko sax xalaatuma maye dara gars yi dañ ma yónnee yàkkamti ma dafa jot gars yi xam ma ci làmb bilaay walaay dama war a wane lu leer baay bala est-ce que tey di nga ko wane incha allah ci kàttanu yàlla di nga ne waxoon naa la ko ci kàttanu yàlla di nga ne booy waxoon na ma ko di nga ñëwaat damay ñëwaat ci yow loolu maa koy reporté de waa ndoon dañ may xaar ñaar tëli di ma xaar Dakar di ma xaar sama reportage day def effet damay daan nga ñëw ñaar tëli ñu def e mais Talfa waaw mais bëgg waaw tey sama maam laa andi Baol 2. ndeysaan waaw yàlla bu wér. sa bi yow ak soq. Euh, bu ndaw. waaw après euh, victoire bi. Euh, fan fan la ko tal faa toll. man moom Bado déggal bàyyi bàlla maa ngi pour adversaire yëpp parce que làmb laa fi nekkal mënu ma siré kenn nag mais ku ma làmb booleel moom ñu jëflante rek waaw. wala wala séeréer bu gàlli nga. waaw bu gàlli. <laughs> mais na xam. mboor mboor bi la lépp jaam. mboor bi tey booy bi la indi champion la. waaw sama sët la ma deret la kon yaakaar naa dara waru mën a yomb day ñëw jël ko rek ñibbi incha allah daan rek su neexee yàlla. kon bëri dafa nekk ci dañ koo dond. <laughs> mooy góor soog temps na xaar xool mu sant. amin amin amin amin ci barke yonent bi. mais ci loolu. sant yàlla. lépp jàmm waaw jàmm. góor fan la tool. waa saa nag maa ngi xaar combat nag quoi dama nekk sama bopp rek mais saa yi maa ngi xaar combat. mais góor yow. góor góor soog ku xam champion bi mu doon ndaanaan bi mu doon ci wàllu làmb ak lu làmb ñëpp xam góor soog mais say combat des fois day sorante est-ce que loolu arrangé na góor non arrangé moo sax mais at bi ñu moom day at boo xam dafa amoon blessure quoi boo xam dama dama amoon combat gaañu ci après mu bëre pare mais nii daal maa ngi xaar combat incha allah bàyyi balla gaa yi sama retour xaar yàlla nañu may talak fekke rek ah saar bi te daan mais maa ngi lay nuyu waaw baax a baax baax baax la boobu. waaw yow yaa dóor bi mu kaaw. waaw waaw noonu la dóor waaw xam nga baax ba may daan bat leen si fii trois secondes yi may invité rajo ba comme tey si man waaw loolu dafa leer. yaa ngi may wax lu neex. FM Sénégal 103 point 1. loolu. loolu dama ko fat loolu démb la mais léegi Bantamba TV moo xew noonu la nag yaa ma gën a xam. ah bay ba la. waaw mais na xam sant yàlla. lépp jàmm mais stade bi booy na mu na mu na neexul ba neexul mais da bokk ci espoir yi ko yëngal. noonu nga wax na mais man mii tamit. bi nga waraay. tey nga am tey ngi lay jaale sa sa yaay. waaw merci beaucoup do kii yal na jaar bi yàgg ci man. loolu amul solo en tout cas tey. nga am ci tey. mais caatu caatu caatu caatu caatu yow. la champion ngay bëreel tey. waaw waaye bu soobee yàgg dina tey. maanaam tey nga ñuy xam kan mooy Bulldozer ci gàmb. bu soobee yàlla ndeysaan caatu guy gi moom moo ne wan day joor Fils de Atou sunu càmmoñ ndeysaan ñaari xale yi ndeysaan dañuy raag ñaari ndaanaan ñaari espoir a nekk ci digg géew bi ndeysaan ndeysaan Fils de Atou ak caatu guy gi caatu guy gi jël na ko eh Fils de ja laay daay la laa wa wulaay da baat la ak tontu. baat la ak tontu daal laa mu dugal ak kese bay baal. Mamadou Diouf ak kese déedéet déet. mbër bi dafa yàgg ci kalaay bi yàgg naa leen wax ne dootul ay rêve ay réalité la da ngay liggéey da dem def physique da ngay dem ci dun yi liggéey contact boos loolooy lamb di ci des yëpp ay motale la rek. ndeysaan moom léegi ci maanaam axlu lamb ñëpp lay seetaan. waaw 1er janvier fi la la fekkoon Boy Niang ak bala Gaye numéro 2 Boy Niang daan na Balla Gaye numéro 2 léegi Boy Niang lan la war a yokk Balla Gaye numéro 2 lan la war a defaraat. ba salaamaaleykum salaamaaleykum Sénégal salaamaaleykum fans yi am di jàmm yi Sénégal monde entier diaspora beeg ñëpp laa mag leen di nuyu gis naa bu baax fii gis bu baax commentaire yi mais kenn mënu leen a fay waaw képp koo xamante ni danga may déglu rek maa ngi ñaan yàlla yàlla taxawu la taxawuñu ba Sénégal gépp neex jëm jàmm. mais Baye Balla Mbuub bu ma laajee yoon la ma wax ak moom tumaani nga may ma tuuti ma wax ak moom parce que kii démb la tey soog a dikk waaw Baye Balla Mbuub nga ne. ma ne 1er janvier fii la la fekk booy Niang ak Balla Gaye numéro 2 Boy Niang daan na Balla Gaye booy Niang lan la war a yokk bala Gaye lan la war a defar fan lan la war a defaraat. dama ne woon ne Boy ñaa bu ñu bu ñu bu ñu ko xel bëre bi am na fu muy àgg du ñu neex ñun waa Guédiawaye si xam Balla si xam booy ñaa mais man damaa bindoo noo xamante ni du ma yafal nagu jàmbur ndax bu jaay jotee doo ko jaay defe naa bu Boy Niang gagné victoire bi waa Pikine ko doon noose man bu ma faraloon Boy Niang fa laay noose sama biir xol laay mën a noose rek mais comme que am naa nag bu ma war a yafal te maa yafal nag wi rek tey Boy ñaa mën na ko gagné ko daan ko ceebu ngéwal da nga koy lekk rek génn ñu xàmme la waxuma laa kës a dëkk dégg wax bi Boy ñaa nag daal dëkk si ceebu ngéwal dégg nga li ko ngéwal yi woyal. ko woyal ak neex. du ma dem fi waaw. mu fa lambaay bala ko loolu ku doon nelaw boo ko boo ko yoo fëggoon sax mu yeewu. surtout Cheikh Rim bu yeewoo doon gaynde. Cheikh Rim xam nga gën a neex si woy. mooy ñuy woy sa maam. wuy woo ma de. Balla lu mu war a yokk lu mu a defaraat. Balla li mu war a yokk ak a bëri mais mën naa si tënkal tuuti rek defet bi tuddul defet defaru la tudd ñun ñu ngi siy bàyyi xel bu baa mais bàyyil bàyyi la ngay làmb bu ko defee boo ñaa ko daan mu bàyyi la wax noonu ñun duñ bàyyee noonu. bi ñuy ñëw kenn yëgu ko kon buy bàyyi bu ko kenn yëg. non Balla mooy lamb Balla bu bàyyee lamb lamb ñàkk lu bari. xoolal bàyyi Balla ni lamb dekkiwaatee loolu moo am solo waaw jaajëf. e doomu Tëngéej baa ngi noonu day joow joow la yor waaw waaw e eh, en rafet amana fecc amana bay ba doom ama mayandoo 15 ba ca buuri géej jëlal bi day joow. ndeysaan nee na ay lébu Amadou Mbaye le grand monteur baal de yére bi Dibeur création moom moo ci aan moo ci jaar bul fàtte ni Dibeur création moom moo ñuy jàppale ci liggéey bi xale bi mi ngi nekk foofu ca Pikine ginnaaw raay centre commercial marché Waranka numéro 66 504 03 06 wala 77 504 03 06 moom moo jaar fii voilà façon tissu bu ne la koy def nag caatu bi. Ah, bala maa ngi tey Fallou Ndiaye dafa def lu rëy dafa jël ñaari espoir ñaari ndaamaan yi nga xamante ni lamb da leen a bàyyi xel mu boole leen xale bi ngay bëreel tey Bulldozer Fallou Ndiaye daanaan la lu mu dëgg day neex yàlla moo def loolu ma demee nag ani waa ñu ngi fi ñu ngi sama ginnaaw mais xoolal li nga indi maam Cheikh jëlal xale yooyu ñoo ànd ak caatu Yoff mais tey am nga combat xale bi nga bëri. am naa combat bu rëy ma doon ma liggéey si lépp lu ma war a liggéey pour daan nga si kàttanu suñu borom. di ngeen xeex tey. ah di ngeen xeex. pare naa pour lépp. maa ngi lay lépp jaam lépp jaam naka taw feex yi. Ah, waaw nice nice tey seen liggéey neexul de ndax taw bi. waaw ah, gis nga. waaw mooy loolu taw bi saa mi ngi taw ci suñu bagage. si si mais noonu la. xewal waaw ñooy nuyu lébu yëpp. waaw di gërëm bu ci mel ni sama jigéen abbi waaw di leen jox rendez-vous ci kanam. waaw incha allah ñoo ngi nuyu lébu yëpp. ñoo ngi xeex da ngay ñoo ngi nuyu lébu yëpp. li nangu ak li làmb bañ. ndeysaan Babacar Diop xool ko c'est un grand arbitre moom tamit consultant ci émission bu mag bi ay dut si ndeysaan ñu koy nuyu bu baax di nuyu Mbaye Fall mon ami mon frère di nuyu Asbekaay xorom ci cin Mamadou Mbaye maa ngi lay souhaiter joyeux anniversaire tay sa bés la yaa moom le 8 janvier bokkuloo ko ak kenn mbay jëri ngoone maa la bay Samba Kulimi ci sëñ maa ngi ñëw ci yow ndeysaan ndeysaan arbitre bi laaj na juge yi ndax pare ngeen ndeysaan booy jóg ak faru jar arbitre bi sifle na combat bi mbokk yi Boy Diop moo féete sunu ndeyjoor Farou Diar moo féete sunu càmmoñ ña ngay lewtoo ndeysaan bu ngeen gaawee rek mu neex ndax stade bi dëkk bi tey mi ngi taw liggéey ci meexul waaye taw bi xéewal la ndeysaan ñu ngi lewtoo waaw waaw Farou Diar Farou ak Boy Diop jàppante nañu ndeysaan Caatu Yoof moom mooy waaj a bàkk noonu la laa ku waaw waaw Boy ak Farou Jar bëri njool la ak Ndaama ñoom ñaar jàppante nañu Boy Diop bal na ko lan la bëgg a def dafa bëgg a ci njëmb li Farou Jar bañ na ndeysaan balaa ngaa xam far gan neexu maay balay bëgg a jeex ngay ñibbi Pape Diouf ko woyoon waa booy bi lu tax mu tuddee boppam Farou Jar Farou Jar waaw Farou Jar Jar. <laughs> waa sabar yi am na faru jar wala fecc am na faru jar yooyu daal mi ngi ci biir faru jar ndeysaan waaw waaw faru jar ak booy njóob ndeysaan faru jar booy jóob waaw waaw faru jar koy jéem a plaqué booy jóob bañ na ndeysaan faru jar ndaama la waaw waaw faru jar ci yi lay jéem a jaar daf ko bëgg waaye Boy Diop bañ na Boy Diop yaa ngi bëri ndaamalu sec de Boy Diop ak Farou Jar def leen lu gaaw ndax ñu jël tuutu tuusub Caatu Yoof Caatu Yoof mooy bëgg a noonu mooy bëgg a tuus noonu Caatu Yoof ak Farou Jar ndeysaan Farou Diar ak Boy Diop jàppante nañu ba tey ñoom ñaar la Farou Diar takk na takk na lan la bëgg Farou Diar Boy Diop xale bi ngay bëreel dafa sek wax naa la lan nga bëgg rof na ko caxabal laay laay la laa waay Boy Diop waay waa la la yow e la la yow eh, eh, waaw bu la neexee waaw ñëwal gañu bajantul waaw waaw jël bu rëy nga daan Boy Diop da doon sonn si man victoire bi moom laa ko mooy barke Alxuraan yaam yaam su ma ñaan dem bay jooyu billahi wallahi taala mais li nga ma waxoon def nga ko def booy jóg xala laa dama nekk si yoon dama bi mooy sama septième victoire sept combats sept victoire yombul barke Alxuraan demul fenn laa yaa ngi saison bi octobre bi ñu gën daan ci bu anti tey teg nga ci ki nga xamante ni mooy Far bu xale di liggéey ànd ak samay mbokk xam mag di liggéey lu métti nekk xale di yow sa jour quatre heures du matin. jël bi jël bi nga rëy bi nga daan dafa rëy du jël bu ndaw. non na damaa mën a bëre. billaay wallaay lamb yi su ma ko su ma yàgg dama ko ibil falan mu jàll ma colol ko dama ko ibil falan mu jàll ba yaakaar mos na ma colol ko mu daanu. njool mi Bébé Bismi ku daan bëgg na lambu la set combat yéex jàmm gaaw jàmm ndeysaan ñaari xale yaa ngi noonu ci digg géew bi Pape Dianka moo ñu war ginnaaw xale NGB bi ñaari tali Biscuiterie Grand Dakar waaye nag Karbala moo ñu wan kanam xale Tinguède bi ndeysaan mëri na rabbeen cëw leen seen doom a ngi noonu mbokk yi tey bisu Fallou Ndiaye la promoteur numéro un mbokk yi arbitre bi sifflé na combat bi ñaari xale yi ñu ngi lewtoo Pape Dianka moo ñu wan ginnaaw Karbala moo ñu wan kanam ñu ngi lewtoo ñoom ku ci nekk sa tànku càmmoñ nga jiital Karbala ak Pape Dianka ñu ngi lewtoo ñoom ñaar ñoom ñaar ba léegi ñu ngi ñu ngi lewtoo ndeysaan mbokk yi bisu le 14 janvier la ñu jëm ak bisu le 15 janvier ñaari bis yëpp ay bis yu mag lañu ndeysaan Ada Fass Zarko le 15 janvier fii ci arène nationale bés bu mag la. ñu ngi leewtoo Pape Dianka dafa mel ni moom dafa bëgg a jeexal combat bi waaye Pape Dianka xale bi ngay bëri lu fàttali ndaanaan la moom la ñu dox euh, meilleur espoir ci saison bi ñu génn ndax kat ah jàppante ñu ñoom ñaar quatre combat quatre victoire la def moom Karbala saison bi ñu génn ndeysaan Karbala ak Pape Dianka jàppante nañu dañuy raak. waaw waaw Pape Dia Pape ak Karbala Karbala mi ngi dox ci kawam. arbitre bi nee na leen taxaw leen ngeen bëri. ndeysaan déggal ma mbokk ma mbokk lébu yi ña way ca kaw ndeysaan ñu ngi lewtoo Pape Dianka Karbala mbokk yi septième combat de la tey ndakaaru comme Paris ma ngay taw waaw des fois da ciy baax climat bi dafa baax après la pluie c'est le beau temps quand même waaw waaw parce laay laay la laa waay laay la laa Karbala ay waay doomu tëngëj ba daan na doomu tëngëj ba daan na ndeysaan doomu tëngëj am na ndam xale bi cëwlit na dëkk xale bi rapide na dëkk xale bi dugub am sa tafaal fa la dëgg xale bi la waxoon naa leen ko bàyyi leen ko xel ah, waa njënd ndax baa jàmm la te wuyu xale yi wallaay gars yaa ngi nii waa Mirina waa Jëwleen waa Mengo waa Bédé dafa dinga sama nit waa ndax du bàyyi yoonam ay lebu lañ fan nga jëm kone ñu ma war a bëreel xam nañ nga combat la 15 dama ñëw samb spécial bi dama ñëw samb sama ndënd ak inshallah mais Ndoumar waaye Balla Mbuub dégg jal mu woo jal taaw mais Ndoumar da nga war a bëre waaw barki alxuraan bàyyi le 30 dama gars yi xaar le 30 avril incha allah. jot na incha allah maa ngi ñëw. waaw dafay combat bu Sénégal di xaar ndax Zarko Ada Fass baccalauréat daf ca am ndax Zarko dafa am lu mu def ci réew mi dem tukki dellu si waat Ada Fass ci deux ans trois ans mu génn def fula def fayda def ci lamb loo xam kenn musu koo def en général moo waral tey moo am Zarko mais yaa ngi laaj loo xamante ni si après ngay comprendre Zarko Ada Fass bon ku ñoom ñaar ku ci nekk mën nga daan sa morom mais ñu ngi wax seen i supporters ñu ànd ak dal xam ne sport Sénégal rek la fii la yem doomu ñaari doomu réew may bëre ndam li du génn Sénégal. da ngay gis làmb ju neex ñoo xam ne amateur yëpp ñoo ko soxla incha allah di ñaanal nag Ada Fass yàlla may ko ndam wax dëgg yàlla man amateur la mais Ada Fass dama koo bëgg te tax. en tant que amateur Zarko Ada Fass. Zarko Ada Fass ah que le meilleur yal na Ada Fass gagné yal na Ada daan. maa ngi lay nuyu. maa mag la ñu jëm nag le 15 janvier Zarko Ada Fass lan ngay wax supporter waaw que le rek supporter yi ànd yar ak ñëw supporter euh, que le maire gagne ku yàlla jox ndam ñoo xam ne kooku la. Zarko Ada waaw euh, Ada Zarko lamb ju neex la parce que mën naa bu dee physiquement ci liñ gis côté athlète Zarko mbër mu taxaw la mais li may xalaatal Zarko mooy bëre aada am bëre bu ñu wuree ca bëre bi ñu teel a jàppante aada mën na ci am sens loolu loolu laa waaw bu neex waay combat bu neex a neex kom combat amateur wax dëgg yàlla ñaari mbër yëpp jaay nañ combat bi vraiment ñu ngi xaar bu neex incha allah. maa ngi lay nuyu. maa ngi lay ziar bu baax. Zarko Ada Fass la ñu jëm le 15 janvier cool yi bari na. lamb ju neex la lamb amateur la te lamb bu ñu yàqam ci jàll dugg ci jàmm mu génn ci jàmm ak salaam quoi ndax lamb boo xamante ne la. bari na ay tension trop quoi te warul woon warul woon àgg foofu yëpp mais nag bon que le meilleur gagne quoi. delloo naa la ziar. ndax moom Zarko Ada Fass. waaw Zarko Ada la. waaw mag loolu la ñu wax du. waaw noonu la rek di ñaanal yàlla Zarko yàlla ko yàlla may ndam. Zarko Ada Fass. bu neex la. waaw mais Zarko man su ma ko doon digalam ko naa mu dal parce que boo xoolee combat bi ñàkk yëpp moo daan boppam benn ko mu taxaw daan ko. waaw na dal rek dalee moom moom laa may. neex na tey ndax bés bi nga ñu indil waaye bésu le 15 janvier la ñuy wax. waaw mais Baye Balla bëgg nañu kontaan nañ am nañ mbégte bu baax suñu xol sedd na Baye Balla di masawu sénégalais yëpp li nga xam ne moo xew jëréem ba pare d' abord ndax Sénégal dafa xat te yaakaar naa ñun ñëpp ñoo bokk ndey ñoo bokk baay bu accident am mel noonu amee dañuy masawu sénégalais yëpp di wax ne vraiment ñu ngi leen ñaanal suñu boom xale la fi daw si suuf sedd guy seen kaw di di wax ne comme tey jeex na incha allah le 15 janvier Ada Fass Zarco ak yi ci nekk yëpp ñu ngi koy waaj ànd ceeg sénégalais yëpp ñu jàppale ñu ñëw stade bi fees lamb ji neex c'est gañ Boy Bankass ak Djibson ñoo nekk ci digg géew bi ndeysaan Djibson moo féete sunu ndeyjoor Boy Bankass moom moo féete sunu càmmoñ ndeysaan mbokk yi ñoo ci combat spécial bi ñaari xayaa ngi léewtu ndeysaan ci teewaay am di Moustapha aw tribune bi ñu ngi léewtoo Gibson ak Boy Banqaas Djibson moo féete sunu ndeyjoor booy banqaas sunu càmmoñ e bu ci combat bi ngi jëm ci combat mag bi nag ndeysaan booy banqaas ak Djibson arbitre bi arrêté na ñu ngi lewtoo ñoom ñaar ba tey ndeysaan banqaas gi ak ak Gibson seen combat bi jàppante nañu arbitre bi arrêté na waaye day jeex waaye dañ koy jeexal ah. et bisu le 15 la ñu jëm diggante waaw bis la de lamb la kom lamb yëpp ñaan yàlla dugg ci bismillahi rahmaani rahim jeexal ci alhamdulilah rabbil alamin et que le meilleur lenn rek laa leen di wax ñoom ñaar coow li bari na riir gi bari na mais nag nañ ànd seen sago. ànd ak discipline ak yiw ba million yi ñu leen fay mu deen la loo xam ni dañ ko mérité déggoo ma de nañu bàyyi xel ni àdduna ngi leen di seetaan ñu ngi leen di bàyyi xel àdduna ak loo am xadar-xadar ak lépp koom-koom boo mën a am bu la nit ñëpp di seetaan da nga war a doon un modèle un exemple tu vois ce que je veux dire kon président yi maa ngi profité ci Bantamba TV di leen interpeller président wu écurie ñoom bu Zarko ak bu Ada Fass nañu waxtaan ak xale yi ànd ak ñoom ñu ñëw ci jàmm que le ñu ñibbi ci jàmm ak salaam. sur le 15 janvier. waaw di ko waajal rek comme ni ko promoteur bi di ko waajalee di ñaan yàlla disposition yi ñu jël nañ ko respecté ba may population sénégalaise bi euh, takkusaanu làmb bu neex a neex ñu ngi leen siy woo daal am nañ yaakaar si ñoom ñaar te def naa dinañu indee spectacle bu di toll moom amul amul si RNT. ñu tuddee ko ko mag ku Sénégal gépp di war di salgal chaque jour monsieur le ministre euh, Matar Ba yàlla na ko yàlla taxaw yàlla jàppale ko mais nag combat bu rëy lañ ko tudde Baye Balla Ada Fass bu ñëwee fii nga xam ne am na bis waaye moom it mën na bis Sarko Ada Fass Sarko Ada Fass combat bu neex la gars yi ñu ngi naan combat xale la ak mag mais d'accord moom ñoom ñaar ñëpp ay xale nekk ci làmb kenn ku nekk presque yaa ngi sa carrière demagul fenn. laamu ji daal bu Zarko nag yaakaar na ne humilier Ada Fass ba ñëw respecté wu ko dina am jël bu ko bet Ada Fass bu yaakaar ne mooy xale moo mën Zarko jeexal day nax boppam ku ko wax da koy nax laamu ji neex la. noonu la demee que le maire la demee xam nga ko. président maa ngi lay nuyu président Cheikh Tidiane Niang bu écrit Lansar. Baye Balla maa ngi lay fay te di lay di ñaan yàlla sénégalais yi nga xamante ni yàlla def na tey ji ñu am accident ca Kaffrine yal na yàlla yërëm leen te jéggal leen te xam ne seen bakkan foofu la ko yàlla binde woon keroog ne foofu lay yem. ñu ngi jëm ci bésu le 15 janvier Ada Fass ak Zarko coow li bari na seen diggante supporters yi ñu ngi waxante lu ne boo amoon kàddu yoo leen di wax yan kàddu yi ñu leen di wax mooy ñu lancé leen ñu dal te xam ne làmb jëkkewul ci ñoom aussi te làmb du mujj ci ñoom. ñi nga xamante ne ni ñoom ñooy accompagner mbër yi muy supporteru ñaari camp yi nañu topp seen mbër ci jouru làmb ja supporter ko ci fair play kii daan daan kii daanu daanu mais quant li ma gis nii ñu commencé di ko sànne ay trac andi problème la ci journée bi te journée bi ñëwagul te làmb soxla wut loolu lamb li mu soxla moom mooy dal ak fair play kenn ku ci nekk ànd ak sa boo ko waree tàccu tàccu ko su waree daan daanu su waree daanu daanu mais lii ma gis nii ñoom ñu di ko jóg làmb soxla wut loolu te lamb jëkkewul ci ñoom te lamb du mujje ci ñoom te nekkul luy honoré lamb nekkut lu baax ci ñaari mbër yi nga xamante ne nii ñoom lañu ñu ànd ak euh, Zarko. waaw waaw waaw euh, bu bari coow bari coow parce que peut-être euh, am na boor boo xam ne bii am manqué nañ tuuti expérience ci comportement bi nga xam ne moom la ñu soxla actuellement ci làmb ji làmb dañ ci soxla. discipline parce que ñu ngi ñuy ŋaññ fu ne kon euh, xale yi war nañ mun a xool seen taxawaay d'abord balaa ñuy wax waxu ñaari mbër yi nga xam ne ñoo war a daje ci géew bi làmb ji ci biir géew gi la euh, travail psychologique bi nag ci diggante ñaari mbër yi la mais quant ñaari camp yi nañu nañu éviter yenn comportement yi pour bañ a yàq bës ba bés bi ñu ko dëgmal mu taftaloog ay bës yu bari yoo xam ne yi yu bari jàll nañ fi ci jàmm ak salaam kon nag nañu fexe ñoom ba li nga xam ne moom lañ doon def temps yële passé ci ay face ñu moytu ko. lamb ji nag diggante ñaari mbër yi li ci nekk mooy ñoom ñaar ñëpp mën nañu bëre mën nañu xeex. ils n'auront qu'à prouver ci biir géew bi. waaw sant yàlla bu wér. lépp jàmm waaw lépp jàmm. waaye bi ngay mujjee fii noo mujjee. waaw bi ngay a fii damaa ñàkk mën a anaconda waaw. mais yow yow yaa jóge déen. man maa jóge ngéwél. dëkk déen waaw dëkk déen waaw. déen Bambilor Gorom Kër Ndiaye Lo. diggante boobu yow sama secteur. waaw armée bu Ngéwél. mais mais mais mais léegi euh, reprendre nga entraînement yi commencé nga. waaw waaw commencé naa bu baax waaw. moom ba léegi déggoo dara ci production. non amoon naa combat Gaston production maa Baba Jaxal mais dafa mujjee yàqu sama côté quoi. ndeysaan mbokk yi Ada Boy Baol ak Arabas arbitre looy xaar souffleel day taw gars yàgg nañu ci stade bi te dañoo bëgg a ñibbi fi mu nekk nii ñoo ngi Paris ñoo ngi ca porte Clignancourt bés bi loolu la may jox ma ngay taw lu neex ndeysaan at bi bisif la na combat bi arobase ndeysaan ak aada booy bawal mbokk yi moo ngem boo ngembulu weex li aada booy bawal moom moo ngem boo ngembulu ñuul li ngir yàlla wuru suuli bu leen fi yàggal ndeysaan ndeysaan ñu ngi lew too ñoom ñaar dañoo xaw a tolloo doole ñoom ñaar bàyyi dañoo tolloo doole tolloo taxawaay te lamb bëgg naa si lii taxawaay bu baax tolloo doole bu ko defee mbër bi day gaaw départ day neex ndeysaan kooku papa Sall biige la ndeysaan sama rak bàyyi jàll bu ba jàll ca maa ngi lay nuyu sama mag di rak nga jar baat ah ndeysaan jàppante nañu arabas arabas arabas arabas jàpp na lan lay bëgg naka maytu la siège wala laay laay la laa oh. ana mooy bool xattar bi ne ko laay laay la laa Ada Boy Baol dóor na ko mot mu rëy Ada Boy Baol ndeysaan Ada Boy Baol ndax na Arobase waa jëli bee ko jaaxal waa la motu dóor bi lu tax dóor bi yow yow lu tax dóor bi dóor bi est-ce que la ci daan dóor bi est-ce la ci teg daan Mamadou Mbaye kii est-ce que dóor bi duñ ko ci teg daan asbekaay seetal loolu est-ce que jëli ko ci teg daan xam naa jëli bee bët bett nag lu la bett mën la am na y a des choses yoo xamante ne ça se loolu la des moments de délire la mënul ñàkk nan ko ko baal mais <laughs> adversaire sa da koy baal ndeysaan waaw waaw waaye lamba ngi nii lii laa xam ñaar bu leen boole ngeen entraîné di ay ponkal da ngeen di ñëw wane seen bopp bu leen tardel amateur loolu day tax a yóbbu mbër fa mu laay laay la laa ma ngay dugg si jëlal caatu yoof mi ngi dugg ci biir enceinte bi caatu mi kenn naa pare de ana bulldozer kii yoof la bàyyi ko kii Malika la bàyyi ko benn barak Malika montagne àll bay ñaax bulldozer fa la bàyyi ko waaye nag kii fukki pinc ñaari ci Ndakaaru ñoom a àndal de ndeysaan aada dafa mel ni da nga andi mbetteel waa Sénégal tey dama mën a bëre non man man man looloo ma jaaxal. bëre lan nga bëre. boo xoolee li simple lu may bëre san vingt kiilo yu may bëre di leen daan bi nga xam ne kon man waraguma bëre sama morom arène une minute waruma koo bëre. xam nga lu ma jaaxal. Ah. mooy da ngeen daw roofoo. jàppante mu dugal loxoom takkale centre de presse. Ah. jékki-jékki ñu dem ba ci biir mu mel ni jeu bi dafa wóolootul boppam. déedéet ci la xaw a mel ne loolu roccee nga daw occasion wu téye loxo ba ba pare dut ko mot mu xew. fi moom pied bi taxaw. du fa taxawee dama koy daan par force parce que sama koor la nekk noonu instant mi sama traite wàll di doxoon foofu noonu maa ko moom moo tax jël rek dama ci def. loolu nga def nga def. maa ngi sant yàlla bu baax foo jëm. nan ma jox samay morom rek. kan ak kan. comme ñu mel ni sama morom si làmb xam nga làmb dafa metti bëgguñu ndaanaan cuune lañ bëgg làmb ji léegi dafa am loo xam nu muy doxee. doo nekk mbër sama la tegal combat yoo xamante ne nii maanaam ndaanaan daal moo tul bëre léegi daal loolu loo mais ndaanaan yi dañoo war a bëri mais dañ ci war a wax mais léegi nag kon foofu il faut ñi nga xam ñooy say ndattangoo ñu jox leen ko ndax li nga bëre tey jii kul ku la seetaan ci àdduna dina la sawar jox ak combat grand combat bàyyi na jeex léegi ma jël jaatu yof loolu laa soxla nga ne ma bu yàlla ci jaatu yof rek nga taam moo nañu bu baax la Bantamba TV et la maa ngi ci euh, télé bu mag bi euh, télé bi nga xam ni moom la ñëpp di seetaan télé bi nga xam ne bu làmb màggee ba toll fi mu toll ci banda bantamba lañ ko xamee boo xam ni coon ci boppam moo ko woyal boppam kon bantamba bi ñu ngi leen di nuyu di jaaral leen suñu ci elaaj Hadj Ndiaye moom mi patron bi ak madame Ndiaye ñoom Abdoul ak Sali eh, Sali ak ñoom ñëpp waaye di nuyu nag korom ci cin bégaay sama xarit la mu nekk nit ku baax ku fonk ay bokkam ku yéene ay bokkam la preuve bi mu amee rajo dafa jël ay doomam ay ah, doom yi mu jur ak ñi mu jurul ak ñëpp dugal leen ci biir. am télé def noonu am télé bi tam def la même chose kon moom tamit dañ koy ñaanal yàlla yàlla jàppale ko. ana booy ñaan am na lu ñu waxtaanee woon. lu jiitu combat bi ca Ndiassane. waaw dëgg la xam nga dama leen waxoon ne daan Balla Gaye moo ma dàqal roi des arènes ñu liggéey ci nag liggéey bu mag. wax moo boo daanee Balla euh, Balla Gaye mi nga xam ne moo daan l'actuel roi des arènes am titre roi des arènes bëreeg ndaanaan yi fi nekk yëpp mais kooku boo ko daane Baye Balla moo dàq roi des arènes. kon Balla ndaanaanu lamb la. non passé na doon ndaanaan xam nga lu ma leen soo jëlee ki mën a bëre boole ko stratégie égal combat bu neex ma ne combat bi bëgguma ci sax ñuy wax ay danaa la yóbbu ardoog danaa la nangam nangam li ma ci bëgg mooy ñu def spectacle yàlla may nañu loolu amul kenn ku ci naaj violence amul ci làmb ji amul ci biti ñun loolu rek lañ doon ñaan gagner avec la manière te on l'a fait. Balla bu dee ndaanaanu làmb boo ñaa ko daan lan la war a ah super ndaanaan <laughs> super ndaanaan la kaay ma la booy ñang ci benn yoon la nekk yeeg seegul. ndax amagul titre yi gars yi am palmarès bi tamit dafa des moo moom dafa jàpp ni bëreegul dafagul dara ci làmb dafa ne père man xale laa rek buy bëree bu ngeen mënee dawal ma dem su ngeen mënee taxawal ma taxaw tant que nag awuma titre yi gars yi am am palmarès bi ñu am jàpp naa ne ba tey bëreeguma mais cool yi bari na trop ñu ne Boy Niang dafa war a affronter Modou Lo diggante Boy Niang ak Modou Lo gars yi nee nañ dafa dafa dafa leer xam nga l'administration est écrite combat Modou Lo ak Ama taxoon amul ba tey certificat médical la indi woon ko CNG il faut mu indiwaat certificat de guérison déposé ko CNG. mais Modou de guérison. gis naa ñu. nee nañu lañ koy déposé. Boy Niang moo tollu ay profito bëri nga ñaari combat sa nawle toog di xaar normalement le 5 la waroon a bëriwaat yàlla dogal combat boobu amu ko. nawleem kan Ama Bal. waaw Ama Bal bi certificat médical la déposé. waaw léegi kon combat boobu il faut mu xaaraat encore su fekkee ni Modou Lo dafa déposé certificat de guérison promoteur bi ni tëggatul làmb ji kon xam nga libéré nañu. léegi nag day laaj CNG am nañu koo xam ne moo yor seen communication ñu génn wax ni lamb jooju amatul bu boobaa nag promoteur bu ñëw ni combat boobu la bëgg ñun dañ ci ànd ak moom su dul loolu dañuy toog xaar. mais toog xaar actuellement nii est-ce que boo Niang bëgg na ko ndax dafa mel ni yaramam dafa tàng ci xale. bu dul Modou loo yéen ci kan ngeen teg seen bët. non pour le moment ñun arrière amul. yow yaa ngi yeg war a tablo tableau ba laalagoo tablo da ngay ñëw di profito du ñu profito de ndànk-ndànk la ñuy dox di ko cons comme li ko xale yi waxee ba yegg ci bi ñu jëm tableau bi moom il faut ñu doon. léegi pour en cas Modou Lo bu bëriwul ak Boy Niang comme Modou Lo ñi li ëpp ci làmb dañ naan Modou Lo est-ce que bàyyiwul làmb. waaw après lan la Boy Niang def day toog. mais Boy Niang du moom mooy wax dañ koy proposé promoteur yaa ngi fi kenn ko nekk xam nga làmb yi neex soo ñëwee wax ak ñun. ñu wax la li ñu bëgg suñ ci juboo ñu bëreel la. Modou Lo est jotul sëkk kër mu génn leeral ak lu lamb. Papis Papis laa wax. moom mooy Modou moom moo ne moom pare na bëri pour bëreeg Boy Niang. Boy Niang moom mooy xaar parce que nawleem tant que libéré wuñ leen moom du ci wax waxagum dara waaw ñaari xale yaa ngi noonu ci digg géew bi caatu yoof ndeysaan ak ki nga xamante ni moom i bulldozer arbitre bi ñaan laaj na leen ndax pare ngeen mbokk yi tey bésu le 8 janvier tey ñu ànd ci ki nga xamante ni moom mooy la Ndiaye le promoteur numéro un waaye Mamadou Mbaye borom Bantamba Mamadou Mbaye borom Aïdou Sigre tey 8 janvier saa bu ñëwee sama xel day dem ci yow ndax yaa ko moom maa ngi lay souhaiter joyeux anniversaire Mbaye jëri ngune maa la be Samba ku li mi ci seen ngi ndaat ma faale ko ma naa ma tax ma balaa dégg fukki bala ñaar ñaari xale yi ñu ngi lew tiyo mbokk yi ndeysaan Bulldozer Malika lu jóge bulldozer Malika montagne àll ba ñaax waaye bulldozer xale bi ngay bëreel caatu yoof saan fukki biñ ci ñaar ñu ngi ci ginnaawam saan ñu ngi lëwtoo ñoom ñaar mbokk yi bisu le 15 janvier bu leen ko fàtte le 15 janvier Zarko Ada Fass mbokk yi que le meilleur ba que le meilleur gagne bu neex. combat bu neex combat bu doy waar combat bu bëri coow waaye nañ ko bëri ci fair play nañ ko bëri ci yar te xam ni lamb ju ne jaar na fi ana Boy Niang ak Balla Gaye numéro 2 le premier janvier ñu ko fàtte jaar na fi dem na laa ilaaha illallaah bulldozer bulldozer laa ilaaha illallaah bulldozer dara amul dara xewagul oh oh bulldozer laa ilaaha illallaah caatu Yoff daan na bulldozer jël bu rëy Caatu Yoff doon na Bulldozer mu daanu ndeysaan bu ñu indil beneen lamb yow. ndànk ndànk ndànk ça va eh waa booy nu wax ñoom. alhamdulilah dama rey war na seen booy nu wax ñoom. booy du wax ñoom. dama dama foo wax ñoom billaahi laa talaay. booy maa leen man. booy maa leen man. booy billaahi laa talaay maa leen man. booy bu bu bu ma baaxee li ma leen doon ma leen rey. parce que sëñ Bamba. booy maa man ma la ëpp doole billaahi laa talaay. léegi jóge nga ci bi nga fan nga jëm. combat Ah, jërëjëf mbokku téléspectateurs yi ñoo ngi fii ci arène nationale mbokk yi tey Thiatou Yoff la woon ak ki nga xamante ne moom mooy Bulldozer gis ngeen combat bi ni mu demee vite fait la et bien fait Thiatou Yoff félicitations mais Bulldozer ñu lay encouragé champion nga xale nga naan nga il faut jamais se décourager dans la vie demal nga liggéeyaat nga ñëwaat Thiatou champion la bàyyi leen ko xel mi ngi ci yoon bi nee na xale bu ko ci moytuwul lu garaaw laa lay wax. Eh, Modou Mbaye joyeux anniversaire happy maa ngi lay souhaité joyeux anniversaire. waaw waaw mon frère. happy birthday merci merci merci. Euh, nga dund nga yokk nga wér. lépp barki Serigne Touba Mbacké maa ngi lay bëggee. fii la war maa ngi lay kontaanee amal jàmm. temps yi dafa mel ni yaa ngi ci temps de maa ngi sa ginnaaw waa gis. luy luy secret. waaw bàyyi ba laay sama secret. <laughs> eh aja